سين بليد وما لومتي كورونا كشيخ عمر محمد البشير جوبي وي يومي حال كشيخ حامي لي على من حالكو هو دين وي آل ولي خليفة المصطفى المختار ثم أبي العباس والغالي والفاروق المنتصر وي ولد وي سعيد بن نور سعيد بن نور wol makka wiyo ceerno ahmad umar hoore ni o ma hafaya ne cuuɗani ɓe mbi bachiruna warisun an jaddi umaru tan cheikh umar mahamadou bachiru yaɓɓati ɗon jaabi mawni o wi wujuhuna bi hubbihi tastabshiru o wi makarimul akhlaqi بالجود والبشر تحيطه بالسعد والخير تستمر شيخ عمر محمد البشير جابي رقم ويوقفه يعطي وينفق كالمطر وللفقراء والضعفاء والله ينصر شيخ عمر محمد البشير جاء بموليكم ويمعينهم يبعي كل في سرور موقن الكبرى موسم الارهاب يا عمر شيخ محمد البشير شيخ عمر محمد البشير جاء يربط ويعانوا المجرم an woni quran an woni fada an woni saharu kono o wi lawla mahafati ma qultu innahu umar hada ubayduka cheikhu umaru lbachir yatabarraku bi mati cheikhu lbachir ƴewtande yimre no yodde wattande o wiyani allude o wiyani ɓiɗɗo o wiyani cahniraɗe o wi ka hada ubayduka alludel ma yatabarraku bi mati cheikhu lbachir omo barkino e yimɗe ceerno makko o wiyani jinnaɗe makko yo allah yoɓe moƴƴere bandiraɓe kettoɗen halif o mo haalno e meɗen caggal nde ceerno hamidi raban haayi bandiraɓe ceerno wi ko fotno haalede foof ceerno hamidi raban haali sëriñ bi nee na mbooleem li ñu waroon wax ceerno hamidu wax na ko waaye nag ceerno hamidu nee na mu ngi sant gouvernement bi di sant li ko dalee ci président de la république wàcc ci premier ministre wàcc ci ministre de l'intérieur ñëw ba ci préfet gouverneur ñëw ba ci préfet ñëw ba ci sous préfet wàcc ba ci maire dëkk bi nee na mu di sant bu baax di leen gërëm ñaar leen ñaanal yàlla ni ngeen taxawoo bés nga xam ni bésu Cheikh El Hadj Omar la Ceerno Hamidou nee na ci turu way juram Ceerno Mouhamadou Bachir mu ngi ñaan yal na leen yàlla féete ci fay leen yal na leen yàlla taxawu bi ngeen taxawoo bés bi sant na leen yéen ñëpp sant na presse bi sant na force de l'ordre bi sant na ñëpp ak dawaa il yi nga xam ni ñoo teew fii muy jigéen ñi ak góor ñi ak mag ñi ndaw ñi yéen ñëpp Thierno Hamidou Yero man mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen bàyyi ak yàlla mi nga xam ni ku mu fat doo fanaan bitti kon yàlla miy fay yal na leen yàlla fayal boppam sant na leen bu baax bu ngeen demee ngeen jotal cantam ak ngërëmam ñëpp fa tabarakallahu moom it yal na ko yàlla taxawu yàlla may ko wér may ko kattan bu yàgg taxawee bés bii sëriñ bi nee na fa tabarakallahu lii daal lu baax la ndax Thierno Hamidou lii njabootu l'islam bi lay dimbali ndax moom dafa jël léppam jox ko Cheikh El Hadj Omarul Fouti jël léppam jox ko Thierno Mouhamadul Bachir Mountakha Taha Cheikh El Hadj Omar bu ñuy wax fii diggante ak Thierno Mouhamadul Bachir fii mën nañ fee fanaan ndax fu bare ay kiiraay yu bare jaar na fa. ba mu nangoo muñ nekk taalibe déglu Cheikh Mouhamadul Bachir téye kurusam toog ci daara bi di déglu sëriñ bi wariwul wuutiwul doxantuwul fenn yàlla li li tey yàlla defal na ko sutur kenn ku ne gis na li mu def fii ci Escale Imam noonu la def may noonu la def feneen noonu lan moo ko may nekk taalibe lan moo ko may am kilifa mais am ku am kilifa ah doo gàggal ci ko ci bett kon Thierno moom dafa am kilifa nekk taalibe nekk ci ron kilifa jël kurusam ni ko sëriñam sante ndax kurus kat ku ko bàyyiwul doo rus kurus ku ko jàpp bàyyiwoo ko incha allahu doo rus kon nag Thierno Hamidou Yaraban ñu nit dañu lay ñaanal yàlla sa cofeel si Thierno Hamidou Bachir kenn mënu la ci dab sarak nag ki nga xam ni moo sës ci yow rëkk tërëkku la muy Cheikh Omar Mahamadul Bachir mu taxaw bu Cheikh El Hadj Omar moom it mu ngi féetale santam. feddali ngërëmam feddali cofeelam ci yow depuis bu Cheikh Mouhamadul Bachir jëlee sa loxo jël loxam boole leen ni Cheikh Mahamidou àndal ak sarax ko jàppale ko taxawu ko dimbali yow ak Cherif Makki Haydara boobu ba tey fa tabarakallahu tànki kanam ngeen ci am waaye amul ci tànki gannaaw kon nag loolu dañ leen koy seedeel di di leen ko sant di leen gërëm ndax Cheikh Omar Mouhamadul Bachir mission bi muy dox. yéen yéen ay ay magam yéen a bale yoon bi ba mu set wecc mu ñëw jaar ci yoon wi ngeen dindil ko dëgg yi dindil ko xaaxaam ji dindil ko lépp mu ñëw jaar ci yoon bi konna peccum li ko rafete nayi mbimo jabbo ci fagga ni ɗingel dabri dabri li ɗingel so tawi yoni ko yumba jagge bala yummiraɓe ɓe noon ko onon almuddo ceerno mahamdoul bachir mawɓeɓe an ceerno hamid yaraman en ceerno sharif makki en e honama en e honama en e honamon en ko onon dari jaggi lawol ngol bandimo te o yaaka tan ko yamirore ceerno mahamadoul bachir ceerno mahamadoul bachir kala ɗo jiiɗa omo yaaha wota namdo wota limbit wota wekki andu ko ceerno hamdoul bachir ko yaminore makko yahata a caggal yaminore ceerno hamdoul bachir ko yaminore cheikh alhaji omar yaminore cheikh alhaji omar woni yaminore ceerno hamdoul bachir ko ɗum o haalata juule ndewe allah jokke en ɗam ndewe dini l'islam teddine koye mon ndende gone gotum onon fof ko ɗum tan woni haala makko jamma e ñalawma ɗi tugunnaji fof koye tourni min goni to banggal fouta ala fof mo fouta wuro mo dillani ala fof wuro mo jaɓɓaki ala fo wuro ngo teddinani ala fo wuro ngo mawninani e fouta holɗum ɓe mawɗini ko cheikh oumar ɓe jiiɗi ko cheikh oumar ɓe jiiɗi ko ceerno mahamadoul bachirou ndu fittaɓe jooɗiɓe yimɓe ɓe hay so tawi garani tottimo jungo jooɗete makko kalde makko aduna o fof ina yiɗimo ceerno mahamadoul bachir haqqillaji fof ina kawre makko xel yimɓe ko daña ci noon li xel yi dajee ndox foo dëgg Cheikh Mahamadou Bachir kàddu bi di topp mooy wax xëy kon loolu ndam la sag la wërsëg la am kilifa bu mel noonu nag da ngay war a sant yàlla bu baax ñaanal ko yàlla ko fi yàlla bàyyi yàlla yàggal ko fi ñu nit ñu nangoo nekk ay taalibe nekk ay taalibe nekk ci ronam dox ci waawam dox ci ndigalam ndax moom diggante ba taalibeem pas na rek. sa pas-pas daal fu mu toll ak noo mel ci moom ak sa pas-pas sa doog lu mu mel say mbir loolu lay mel. dugg tuggante naa turu yàlla bi sàmm naa saafara bi dugg naa xàll bi lépp pas-pas bi rek pas-pas bi bu dëgëree baax ñun ñëpp dinañu gis résultat bi incha allahu taala kon daal mbokk yi kontaan nañu kàddu yi rafet na lépp rafet na Thierno Hamidou Yaba yal na la yàlla taxaw may la fat bu gudd bu ànd ak wér dundal ngal yu àlla barki. ne yàlla dolli la dolli la bi ñëw na ba pare yàlla na la yàlla sunu borom dolli fattu wa qul rabbi zidni ko qul rabbi zidni kon yàlla na la yàlla dolli la di la dolli di la dolli waaye ngay dollee ci barke yonent bi sallallahu alayhi sallam ci barke jëmm ji toog di Cheikh Mouhamadul Bachir Mountakha ñu nit ñu ñaanal ko yàlla sëriñ bi. ni muy ñaanalee yàlla taalibe yi taalibe yi nañ ko ñaanal yàlla boobi yàlla yàlla guddal faram ko dem yo allah nguur ngurdam ceerno bachir ceerno bachir ko taas l'islam ceerno bachir ko taas diine e so en ñaagiima nguurdam makko wote en jejjin ñaagaaɓe yo allah juutu nguurdam makko sabu so wuuri en nguurat so dañi en dañat so woni en gonat ɗum haram gona o gona noon daño o daña wona duwana hoorema duwan ɗum tan ɗum haram en duwo e barke allah e welaɗo mum e barke cheikh tidiani e barke cheikh alhaji oumar e barke seydou nour cheikh oumar e barke ceerno ahmad oumar hooriniro ceerno mouhamadoul bachir yo allah rokkumo duuri seydou nour cheikh oumar barke cheikh alhaji abdoul ali si malik dabba e barke moƴƴuɓe ɓe waliyaɓe ɓe e salihine en e ɓuɗɓu en e awtade en e lawtade en yo allah junno ɓurdam ma hokkuma duuɓi sey nour cheikh umar gila ñane jooɗiɗa e jabbere cheikh umar goto fo yihoore mum a wona kanum cheikh umar wona almudo gonɗo oto wona canana wona jombinde gila ñane allah joƴƴinma lomtina mawɓe yaaɓeɓe kala almudo yii hoore mum e jamde ko ɗum allah waɗi a yiɗa hay hunde a fooɗanake hay hunde a sohlade hay hunde koɓe jogui ko a acciti ɗumen hen ko joguiɗa ko waɗanen nde holna ko jogiɗa ko a totti ɗum yimɓeɓe koɓe jogui ko a artiti ɗumenen bandiraɓe holno jaam waɗata ha jaam dañataka jaam dañat pooɗe pooɗe si heewi tan on goppur place ceerno noon ɗo woni ɗo ko ɗon tan woni ko jogi ko o totti julɓe ɓe liwa joxna ko julliti liɗiyor mbaye nanan ko kon jamma day sax serigne ahmada serigne bi mu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla xam nañ ni seydil haaji malik lépp lu mu am wala lu muy ndàmbo Cheikh Al Hadj Abdallah te loolu suulu leen jëf fakku leen jëf mujjeewu leen puso bi itam mu réer ndax bare na ni ñuy defal teraanga ñoo xam ne bu ñu wéetee. duñ ko wax bu ñu ñëwee ci public wax waaye yéen ngeen wéet ngeen ñàkk wéet ngeen nekk ci public ngeen nekk kenn Cheikh El Omar mooy seen socc. Mm. Cheikh El Hadj Omar mooy seen mooy seen wax fu ngeen fekk njabootu Cheikh El Hadj Omar da ngeen def ni Cheikh El Hadj Omar mu ngi nii toog kon loolu njabootu Cheikh El Omar yëpp gis nañ ko te loolu da ko doon. liggéeyam jot na nag moom ngeen defal mag ñi moom ngeen bàyyi mag ñi kon sëriñ bi mu ngi lay sant di la gërëm o nee na Seydil Hadji Malick wi yara alladi naala min alxayraati dunyan wa uxran nauhu xadiyaati o wi almudo kala ko dañi arna e lahara ko barke ceerno mu dañi galle Seydil Hadji Malick wi ga Cheikh Alhaji Amar sër bi mu joxe jox ko Cheikh El mu jox ñaar ci sër ba bokk ko ci pokkataaram bi delloo ko ci ëmb bi jox ko Alpha Mbaye mu yaram mu jox ko Fara di wane loolu jur na ngiree jur na barke ñëpp gis nañ ko kon si bi yàgg sëriñ bi sant na la na li mu la bi ndax ndax kontaan ceer na ceer na néew na lu ñu waaye bu la téye xamal ci mbir bi nga bokk kon si yàlla teraanga bi yokk boo demee nga jotal nuyo ak ak ak ak xalifa bi Seydi Aboubacar ibnu Mouhamadul Mansour ibnu Cheikh Seydil Hadji Malick soppeem la wëllëyam la moom moo ma wax ni bu fekkee am naa ku may yaakaar ci addina tey ci fi ma toll sama dund Thierno Mouhamadou Bachir génn ci Seydi Aboubacar moo ko wax te moom du wax addu bàyyi nañ ko ba ñàkk caaxaan lañ ko tuddee kon nag si moom it sëriñ bi xaritam soppeem wala dem Thierno Bachir mu ngi ko yónnee ñaan yàlla ko yàlla def si defal shifa am taaman yàlla fëgg boppam ba ay tànkam jógaat li mu naan ci Tiwaawan jumaa ji li mu ci naan Thierno Bachir mu ngi ñaan ci yàlla yàlla na ko yàlla may mu yeggale ko ci jàmm ba indi jëlee ko te ñun ñëpp ñu teew ci barke Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. léegi nag li ñu waroon def yëpp def nañ ko ñi doon laaj ci ajjiyam yaakaar naa mbaxane yi génnuñu woon baas bi kon yëpp dellu si nañu waaw mbaxane yeeg kol yeeg loxo yeeg lépp ñëw na macha allah ngir dajale ko teg ko ci loxo sëriñ bi Sidi Ahmada sa baay Thierno Mahamadou Bachir jox na la ndigal na nga ñaanal xadara bi ñaanal jullit yi ñaanal réew mi ñaanal bi incha allahu digg xam xam ngeen ni ah corona bi ziar yu bare dafa taxawoon ziar yu bare lañ ko tëjoon fa tabarakallahu lépp nag tijjeeku la ziara wala fu la Kër Soose fi nga xam ni foofu la Cerno Tijaani Muntaqa Faaxa bu Cheikh El Hadj Omar toogoon ci xilaafam jóge dem Kër Soosi fa la nekkoon fa lañ ko rob ziyaaram ñu ngi koy def le 10 incha allahu taala sàkko dara sàkkuwaa dara toolul ko neen warate ziyaara Kër Soosi Thierno Tijaani Muntaqa Faaxa bu Cheikh El Hadj Omar 23 24 fii ci Wakam la زيارة بوبنا زيارة الشيخ عمر محمد البشير بن البايان شير محمد البشير شير محمد البشير شيخ ما بيشير ما منتدى دي جند أبو فلور سكر سيد نور شيخ عمر وقت ملا شير ما منتدى وقت ملا بيالا دفنا متوقع خلاف مام شيخ الحاج عمر دومم جي شيخ عمر محمد البشير سكو غلبهم أم يارم دخبة tabarakallahu samp fa daara samp fa xadara samp fa lislaam mu ni dara bu dul fii kër kii kër moom gardien la gardien la ci biir kër Ahmed ba muy dund ak Thierno Seydou moom mosul sàkku am fii pàkk wala terrain sax ngir leen xurum bi leen yàlla jox te naanu ma woon itam wut kër fii ci Dakar yow nag bu yàlla defee cher nga sàkku am kër nga wut kër yow war nga def loolu loolu bokkul yow doom nga. waaye sama diggante Thierno Mountakha Ahmed diggante mag ak rakkam la te ay xurum dañu koy mayante xurumaa ji bëgg mbir ci te Thierno Mountakha Ahmed Mountakha Cheikh El Hadj Oumar Fouti gis bu Seydou Nour Cheikh Oumar passé Seydou Nour nag gannaaw yàlla ak yonent bi ku mel kenn melul ne moom ca chez vous et bés ci biir njabootu Cheikh Alhaji Omar ñun njabootu Cheikh Alhaji Omar nag laa tudd waxuma ñeneen ni wiyaani wobbe ooyi mbiir gamari ceerno Seydou Nourou gannaaw bu Cheikh Alhaji Omar Fuuti yu wéyee cheikh Cheikh Alhaji Omar yi ku ne am na fu la yàlla fee accord bi ñu la defal loolu Cheikh El Hadj Omar moo toll noonu mais Cheikh El Hadj Omar ay mbiram dafa yaatu ñun sunu baay Mountaga Taha bu Cheikh El Hadj Omar seen baay Seydi Aboubacar ibnu Cheikh Seydi El Hadj Malick xam na kan mooy Mountaga Taha Cheikh Seydil Hadji Malick xam kan la Mountakha Tall moo ko jëlee ci Tamba indi ko fi mu nekk fekk tubaab yi sonal nañ ko ci ci ay mbóot yi muy wane tubaab yi sonal ko ci lool daa moom Mountakha Tall daan na toog bu toogee. fu mu buggul loo xam ni yëpp dafa même fekkee mu ngi nekk Tamba nga nekk Dakar ndox mi dana yes bu ko neexee ci kattan la loolu ñoo koy wax sirrul yëg amul ku ko am ci setu Cheikh Alaaji Umar yi lu dul aamidu Cheikh Umar kooku rek moo am secret kooku rek moo am secret aamidu Cheikh Umar li ñuy wax. sirrul yadi nga xam ni boo nekkee tambaas nag boo loxo ku nekk Dakar mu nangu loxo bi ak moom même bu fekkee kon mën na mën na xeex ci kon mu ngi mu Lamine Bachir Cheikh Omar Caxaay mu ni malakul mawti bii mawti bii jël ruux yi bu ñëwee nee na lu dee na juróom-ñaari téeméeri kilo xaal kilomètre malakul mawti bi buy ñëw nee na Lamine Bachir nee na maa ngi ciy teg ci sa bët ci moom Lamine Bachir mos moom Lamine Bachir mos na mu ngi dox ci kaw kaw xaay bi wota mu ngi koy yóbbu ba mu ñëwee ba ci digg dex bi rek boobu jamono défense amul diggante dex bi ak ko oto bi saaraat mu jëm ca dex ba ñëpp yóobu oto bi taxaw. loo nekk ci junni pom bi leneen bi mu ngi tiim ci dexam mu ni waa Fuuta ngaaw ne suma maam Cheikh Omar sonn na ñëw ne loolu ku nekk xaay ca mel gis na ko dégg nga ko boo ko gis itam dégg nga ko nee na pesu baale bi nuuru Cheikh Omar bu bu la pesee te tegul ci parce que yàlla may jàmm mas na ko def loolu am na lu muy du wax te ñu koy junj rek loolu kenn du ko wax Lamine Bachir Cheikh Omar mais Lamine Bachir dafa jaamu yàlla ba baaraam bii ne baaraam bi mu lekk ba des wee kese kurus da ko doon def bàmmeelam fi ko suuloon ca xaay boo fa demee garab ga def benn course Mountaga laa mel ne Diop sese ko cent kilos cent kilos dugub la jël teg ko di ci ba wér bi muy jël pët ba cent kilos bu jeex salaatul fatihi li maa ubbi sa aada ku aada ku mënul yor ci seetu Cheikh Omar jamono ji dama leen laaj boo gisee ba wax lii damaa bañ nit ñi ñu mel ne ma ñu mel ne ma mu ni ñu nit ñi wéeti naan ah Thierno Bachir de tey baayam Seydou Nour te moom fu mu toog Seydou Nour Cheikh Oumar lay wax micro baayam li mu am lu tere bu wax ko lu tere lu tax moom Seydou Cheikh Omar la wax Mountakha Taha baayam kiraama ak mboot li mu am lu tax du ko wax Seydou rek lay wax ñu amul xel yi la indiha illa lillah enanehen bakkaar ko ɗum tagi men a haala ko kalam ɗum tagi min kaala ko kalamɗi ko surtout Cheikh Omar nee na Thierno Mountakha bu muy dund mosul am kër Dakar nee na Seydou Cheikh Mar mu oh oui Seydou nee na Seydou Nourou Cheikh Omar mu ni man de lu ma ragal ci sëtu Cheikh El Hadj Omar yi su ma mag Mountakha Altaha rek laa ragal ñu ne ko waay bàyyi Seydou Nourou lu tax mu ni leen mu moom Mountakha Altaha bu xoolee yàlla bu. Muntaqa loo bëgg defal naa la moo tax Thierno Seydou mu ni ñeme bu xoo moom bu ne am na ni ko Muntaqa lan nga bëgg def naa mais Muntaqa taa xamoo mbiram ñetti fan bandi tëdd gene bu mu yaw tam bandi tëdd bandi tamit bandi suba Alaaji Omarul Fuutiyu ay mbiram bu weesu ñetti fan ban takk bind leetar Muntaqa Baaxa bu bindee leetar nit ñi sànni ko si jëm yi nees tuut leetar bi boromam day ñëw ba wàcc ci tàkk te jaarul poste mos naa waxtaan ak Cheikh Tidiane Qutbul Maktum radiyallahu taala anhu turam Cheikh Tidiane Makki Muttaqa Taha bu Cheikh Alhaji Omar mu ni ma sa baay defal na ma aaya ba nga xam ni saafara boo xam ni mais ah saafara boobu kimiyaw ma ni ko saafara si lu mel Cheikh Tidiane mu ni sa baay dafa waxoon boo sottee aaya boo tegee butéel bi aay bi delluwaat fi mu nekkoon yokku du wàññi wax na ko Cheikh Tidiane si ak wax na ko ñëpp dégg nañ ko même ne bu ci dara lii kay xanaa du di fànn la kenn du ko jeex lii kono noon <laughs> sunu baay sunu soppe nitu yàlla nga xam ni jamono ne jamono jamonul xayri wa salaama mbaax ak wa wal aafiya ak wa tawaafuq Cheikh Alhaji Cheikh Seydil Hadji Malick moo ma jur li ma am lii lépp ci barke Cheikh Seydil Hadji Malick waaye nag taraa bu ya suma xol bii ba li ma bëgg ma am ko ci yàlla yàlla may ma ko sabab bi mu ngi jaar ci seen sëñ Nour Cheikh kon nag ne bu ñu toogee damay jox sax Seydil Haaji Maalik cëru Juréel ma sant ko ci Juréel waaye su ma buur ak su ma wusuul ilallaahi ma jox ko kenn say dur na ko du benn du ñaar du leçon bi ak message bi la leen jëkk jox yéen ñii di déglu ak ñàkk a dëgg ëllëg ko ca dem. am na ñuy xam ni ñuy wokkante sax naan Thierno day <laughs> dooma bi naan waa Thierno daal di wax maam Mountakha Baaxal moom daal saytu Cheikh Bara lay wax waaye man mii Thierno Bachir lu tax loolu. Ceerno Saydu Nuuru Cheikh Oumar moo ma yóbbu ci Ceerno Ahmadu Oumar Hoore Ñiiw ne ba ma fa demee juróomi leetar la Saydu Nuuru Cheikh Oumar bind jox ko Ceerno Ahmadu Oumar Ceerno Ahmadu Oumar mu ne ah lii de doy na waaye ii man de Ceerno Saydu Nuuru Cheikh Oumar bu bind benn leetar rek la doon bind waaye juróomi leetar bind ko ngir jëmm ji ñëw ci man te bi leetar bu ci ne lañ bind ci beneen bi moom lañ bind ci beneen bi mais Kowrison moo bind leetar yi ci li digal sëñ Nour Cheikh mu ne sa Cheikh Amadou Mar mu ne ah lii doy na waar mais li dox diggante mag Thierno Ahmed Oumar Hoori ñii woon loolu beneen mbir la beneen domaine la waaye lépp nag yàlla saytu shahwa lépp nag yàlla gannaaw yàlla ak yonent bi saytu Cheikh Omar mooy mbir bi mooy mooy njaar mais li ma am tey ci tuuti tuuti lu ma am amul sax nu mu toll. waaye barke ngi ci nag Thierno Seydou Nourou Cheikh Oumar mais moo mooy sama bi moo tax bu ma waxtaanee ba tudd Seydou Nourou Cheikh Oumar wala Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Malick Dabakh wala Cheikh na Amadou Oumar Honé ñiiwa mais dootuma mën téye ci sama bopp moo tax xabar bi may àndal dee loola tax muy wax waxtaane mbiru Seydou Nourou Cheikh Omar léegi nag Thierno nee na ci boppam maa ngi laaj maa ngi laaj maa ngi laaj jamono bii tey surtout Cheikh Omar Thierno Mountaga Ahmad Mountaga bu Cheikh El Hadj Omar tëdd fii te defar lépp nag balaa muy dem. Cheikh Nour Cheikh Omar moo ko jëlee bopp de forcé ko yóbbu ko mu jàng résultat bi ñëpp gis nañ ko sëñ Thierno Madane kan moo ko dindi foofu yóbbu ko jaataar Seydou Nour Cheikh Omar la Thierno Mouhamadul Hadi ci Nioro kan moo ko dindi yóbbu ko ci Thierno Amadou Baro xooli nii wa Seydou Nour Cheikh Omar. ko nga xam ni Thierno Hadj bi nga xam ni ku ku mel na moom ci njabootu Cheikh Al Hadj Omar ci ma am jox miskin yi ñuy lekk ak jox ñuy naan amul moom Thierno Seydou Nour rek moo ko raw gannaaw Seydou Nour moo jël deuxième ki mu li mu li mu dimbale defar ko ci kii ci sëtu Cheikh Alaaji ah xale yi waruñu sant say jur Cheikh ma la la ah kay taal sëtu Cheikh Alaaji Omar bu jàngun sëtu Seydi Alaaji Malick bu jàngun ñii nag laa ñeme wax man Bachir waxuma sëtu keneen waxuma sëtu yonent ñii bu ñu jàngul. dañuy rusloo nit ñi sëtu Cheikh Al Hadj Omar sëtu Cheikh Seydina Hadj Malick ñaar Thierno nii ñii rek laa sañ a wax nag bu ñu jàngul dañuy rusloo nit ñi mbindeef yàlla ah dana taw ah mais bu ñu jàng. jaamu yàlla topp alquranul karim ja jàngale taalibe defal leen taraabiya du taraabuy bi xew léegi ci jamono bi de taraabuy bu boobu de oo xam ne yow ak sëriñ bi yéenay xàccu taraabuy bi ñuy wax mooy bi Seex Seydil Haaji Maalik di taraabuy ana boobu téere def ay taalif wala bind def kurus allahu akbar jumaat jàkk tool ya lii mooy karaab yi te karaab muy xew léegi ñu ngi jëm ci asmaan ñu ngi dem ca kaw asmaan dem leen dem leen ba xam ne jàngal say taalibe yar leen yar leen nga wan leen yàlla nga ña bu leen wan sa bopp nag wan leen yàlla rek buñ la bëggee def yàlla yow mi sëriñ bi lankal ba lank ya loolu mooy taraabu ya alhamdulillahi rabbil alamina la yar ci mbindeef yi ñii leneen yàlla yi ci kon alhamdulillahi rabbil alamina waaye bi ñu ngi dem ko waa samaan de ñoo ngi ñëw ci suuf di dem fen di dem fale loolu de bu amee du taraabiya bi ñuy jàng ci téere bi ak bi ñuy wax mën na nekk nag mën na nekk ina waay woon yàlla mën na may jaamam mu dem ba ci juróom-ñaareelu suuf mun na may jaamam mu dem ba ci sidratil muntaha juróom-ñaareelu asamaan loolu karaama lañ koy wax karaama la boo ko defee itam taalibe yëpp du ñu ko mën def yow rek boo yéegee dem taalibe yi mënuñu laa topp ndax dana dem dañuy ku ci yëkkati tànk doon ci suuf ba nag sëriñ bi nee na daal. ne ahlu bayti rasul surafaw ah ñoo nag ñeme wala seen mbir waaye ñoom it tey sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lawlaahu maa xuliqat shamsun ولا قمر ولا نجوم ولا نوح ولا قلم ودول هو سيدنا محمد ليه يلا بنت بنت جات لب لوم لا الو كان مو كان محمد انا أمم. نيت دار من تاخ جيم wàcceel sa loxo am na koo xam ne waaye Seydina Muhammad boo jekkatee sa loxo nga ni Seydina Muhammad moo gën ñëpp bul wàccee sa loxo sax na jëm ca kaw rek na yëpp dëkk moom man boo ko waxee rek loxo ba day dem ci kaw waaye du dem ci suuf waaye boo ne maa gën ñëpp wàcceel sa loxo ndax am na ku ndox ku nekk ci roqam te gis nga lu tax Seydina Muhammad muy jaamu yàlla. lu tax moom Seydina Muhammad ay tànkam ñëpp jaamu na yàlla ba tànk yi néewi mais deret bu ciy génn ngir jaamu yàlla bi wa min al-layli fatahajjab bihi naafilatan asa an yab'athaka rabbuka وقم الليل قم الليل إلا قليلا بقوم الواحد نصفه فك يرمت بالصلاة قم الليل إلا قليلا يعني قم الواحد نصفه فكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصفه أو انقص منه قليلا فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم loola tax mu wax ko ne moo tax mu indi banal taal tabaarakallah tabaarakallah ah taal léegi taal jaara jërëjëf léegi kay defal ndànk rek aha ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما Thierno Mouhamadou Bachir waaye danaa yërëm rek waaw xam naa def dafa dafa la yërëm rek waaw ah waaw ne alhamdulillah ne c'est Seydina mohammed ne bu ma daanoo ci cheikh Seydi El Hadji ma daano ci njabootu Cheikh El Hadji Omar ñeewuma c'est Seydina mohammed toralna sañna nettali li seen maam sayyiduna muhammad ma ma gaaral leen foofu loo loolu rek moo des salli ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf taal tabarakallahu tabarakallahu ceerno sëy jaaral na leen koy ziyaara wakaam ziyaara wakaam bi gën bi jeexaluñu dafa am luñ fa moto leeral tuuti ndax jamono ji dafa tëlëti ziyaara bi ñuy def waxaar ziyaar boo xam ni Cheikh El Hadj Omar moo ko sampal baayam Thierno te Thierno Bachir ba ñu ko sampalee ziyaar bi bëri na moom lu mu yàgg yoon wi yàgg lool ba ñu ñaan jooy def lu ne mujj gi mu xam ni cofeel ak taalibe ñoo nit njaboot nañu dañu war a sàkku mu nangul leen ko kon ay ñeneen ñu ngi def ay ziar muy taal otam di dem di dugg ay avion hélicoptère di dem fu ne njabootu boppam bu sakkoo ziar pour defal ko ko moom am ci ngërëmam it mais li taxoon ma bañoon ziar bi nag dañu bañoon Thierno ñu wax ni nit ñi ah Thierno daal waaye waaye mu ngi sos fii beneen ziara te ziara baayam ca Louga mu nga foofu. Thierno Seydou Nourou Cheikh Omar dafa waxoon ni ma buggee Cheikh Seydil Hadji Malick ñeemewu ma def ziyaara ngir mu bañ a yàqal ziyaara Cheikh Seydil Hadji Malick xayatu Seydou Nourou Cheikh Omar ma xayatu man it ñoom it bañ ko sappe wax naa leen ko man waaye ñu ni naa bay rek ak ñoo xam ñoom ñaan ko ñoom Thierno Amady ñoom Sodi yëpp dugg nañ ci bu gannaaw gi bu nangu rek nangu rek mooy ziar boobu ñuy def nga xam ni Thierno Mouhamadul Bachir ci boppam mooy teew toog ci xagaram rek ñëpp takkusaan bu jotee Chérif Makki Thierno Hamidou Yaramat mag ñu baax ñi dar ko mu génn nag surtout Cheikh Adama Thierno sa ne boppam Cheikh Al Hadj Abdoulaye Al Amir radiyallahu taala anhu moom ci boppam sax ñëw na ñaan ko ni Thierno li Cheikh El a Omar wax bàyyil mu def ko kooku nag bu fa jaaree kooku su ma saytaane la lu ma wax ma def ko kooku su ma saytaane la kon nag Thierno Mahamadul Madani bu Thierno Mountakha Ahmed moom ci boppam mooy ñëw jiite ziar bi tabaarakalla Thierno Papataan jërë ngeen jëf ñoom ñoo ko moom le 23 le 24 Thierno daf ko def rek. Thierno Madani ñoo koy jiite kon Thierno Seydou yooyu le 23 24 na ñëpp daje Wakam 30 décembre juma Thierno Seydou Nourou Tall nga xam ni Thierno Mouhamadul Bachir mii Thierno Alpha Aliou Thiam ñoo posé woon première pierre ak Cherif ak Thierno Cherif Ahmadou Ali. ci ndigalu Thierno mu digle jumaa ji pare na dañu koy ubbi incha allahu ziyaara Thierno Chérif bi mu doon def moo mu ne ko ziyaara bi ubbi leen jumaa ji julli ci jumaa bi ñu ngi ko dubbee suñu maam alxaaji Seydou Nour Cheikh Thierno ci boppam moo ko yàlla ci yàlla yóbbu ak Thierno Alfa Ali Thiam incha allahu bu ñu paree foofu foofu la ñu yem ah kooku nag moom ñëpp xam nañ ko ziyaara Louga nag beneen dimension incha allahu taala bu ci yàlla yóbbee yàlla ci yàlla yóbbee ñu fekkee ko te tar ko bu ñu tar dara dara lu dul ziyaara Louga ndax ziyaara la tey boo xam ne dimension bi international la waaye ku ko waral mooy jëmm ci Cheikh Mouhamadou Bachir toogaayam jotaayam waxam mbaax mënoo doomu daanu macha allah kon Serigne Ahmada tabarakallah nga ñaan ci turam. waaye waaye balaa maa ñaan aaya ba maam Seydou Moutaga Daha defaloon Cheikh Abdou Diagne si albert Diouf ah loolu nag dama koy warlu ba pare moom mooy doon incha allah ah ah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 هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس سلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر <coughs> سبحان الله ما يشركون هو الله خالق البارع المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض الحكيم ولله الاسماء الحسنى فاتقوه بها قل الله او الرحمن أين ما تطلبوا له الاسماء الحسنى الله الرحمن يا رحيم يا مالك القدوس يا مؤمن سلام يا الله يا متكبر يا جبار خالق يا مهيمن بارك غفار يا الله عزيز قهار يا والي مصور يا وهاب رزاق يا فتاح يا الله علم يا عابد باسط يا حكم المعز يا حافظ رافع يا الله مسل يا عدل يا سميع واسع يا بصير باعث يا لطيف يا الله ربي مقدم معني يا مؤخر يا غني يا الله يا خبير يا الله متين يا واجد الولي ربي يا حميد يا الله يا علي يا الله حليم يا حق يا وكيل ماجد يا غفور يا حي يا قيوم يا الله شكور جامع يا مجيد ربي يا كبير يا مستر عزيم يا الله قوي محسن معيد مفتوح الصمد محيي يترع في بر يا الله دواب يا متعالي واحد الاحد المانع يا دار يا نافع يا الله يا مالك الملك رب ذو الجلال والاكرام شهيد بديع هادي الله يا نور منتقم قادر مقتدر مجيب يا الله يا ودود يا الله يا اول اخر كريم ظاهر يا رقيب باطن يا حسيب يا الله مخيط يا الله يا جليل ربي ويا حفيظ يا الله يا حكيم يا الله عفو يا وارث باقي رشيد ويا صبور يا ربنا يا الله يا الله بسير هذه الأزرام صليا على سيدنا الحامد المحمود يا الله الفاتح المحلق خاتم ما سبق المسر المقلم بخير الحق يا الله الناصر الحق بالحق جل وإلى صراطك المستقيم هادي الله ثم على آله حق قدري قدرا مقارقا إنك العزيم يا الله رب تبارك أو رب تقدس أو رب تعالى علو والرب يرضى عبد ذليل فقير خاشع مجن سجدا عاشق يا الله يا الله إليك مدى اليدا رجاء مغفرته أجل مسامحة يا الله يا الله إليك مدى اليدا رجاء مغفرته أجل مسامحة يا الله يا الله أمن لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع رحمك تقبل الله ربنا دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا إمام تيم آمين آمين سجد دعانا ولا تحيب سيد رجاءنا يسر لنا كل أمر رب من كرم يا خمنا غير السجام يا جعبنا الجفي يسر لنا كل أمر رب من كرم يا خمنا غير السجام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 allah holli on ngal ɗo dental barkilngal bangal fayide o jii oɗo jeyaɗo allah walla ɓe e jeyaɓe allah kono noon e gargol ceerno ceerno basir mouka ɗaha chemol futere allah taala an o nani ko haali ko e ko yeewti ko e ɗo udirɗo nan bandiraɓe mbaɗani doka ceerno basir mountaga ceerno samba mamoudo si gaade kuñikaare heeɗe kaɓir ceerno basir bisimilla gollema jooɗi pewi ceerno zaky ousmane ko enenne julɓe fota en nan ñagoɗen yo allah hokki en teede oɗo saaha mo wuuri en ji halifa o softene makko hannde nde e yewtere wande fayide nde e oɗo duwa hande duwaɗo mbiyen tan ko yo allah jaɓanen jaabunen jaabuno windere nde kara bandiraɓe julɓe ko ɗo uddirten yewtere meɗen nde ganduɗa taw ganduɗa ko ziyara e édition 2022 taw koye 11 novembre wonno hande noon ko 12 janggo kadi kolen 13 wonko woodi kono bandiraɓe julɓe ilal liga eɗen mbiya tan julɓe yeen kawri kadi mo wuuri barke annabi sallallah sallam barke cheikhumno fuutira الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين نديلو سانتا الله سبحانه وتعالى مي مايون ñu commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim mu gàttanal ñu nak ba ñu yeggalee ak alhamdulilahi rabbil alamin yàlla dogal na ni ñing ko don wacc ay wër diko ko laaj ay fem diko ko laaj ay semaine ba tey ñu mujj ci cheikh Mouhamadou Bachir mam Cheikh Omar ñëw président ziar bi waye ku nek gis na ziar bi ni ma la dawme ziar 2022 bi ak cheikh Hamidou Yoroban ak Safinatu Saada yakarna ni ziar bi dama wax ni musufé am ndax ku déglu cheikh Mouhamadou Bachir da ngay yëg ni dafa waxtan ak xol bu feex dafa waxtan ak yéene waaye dafa waxtan ak xol bu sedd fa tawarakallah kon ñu ñaanal mbolam ñi nga xamni ñi nga andon ak ñun ci waccay ziar bi mbolam ñi nga xamni ñi nga andon ak ci ziar bi ba tey jeexagul parce que ëllëg dimanche incha allahu rabbi dañuy ñëw ak consultation gratuite ak ziar yi nga xamni mo fi dess ak Thierno Hamidou waye rek ñu ñaanal yàlla ñëpp kontaan bu baax a baax nag ci waxtaan ak surtout Thierno Mouhamadou Bachir yi mu fi feeñal yëpp waaye delluwaat soññat kilifa diine yi si sen taxaway ci njang ak njàngale ndax wax na ko ci bir euh, waxtanam sëtu mam Cheikh Omar Seydil malik kon waxale na sëtu mag ñu bax ñep suñu jangul jàngale wuñu yare wuñu kon wacc nañ yoon wi nga xamni mom la mag ñi tracé won kon jërëjëf Thierno Hamidou Yoroban wax naa ko bi ñuy commencé mani mom ñet rek moko yor nan la rew mi di jage nan la diine ji jage waye nan la tariikha bi di ñongé motax bi muy samp mu njëkk a ñëw samp daara ndax xam na ni al madaris xablal masajid samp daara jàngale ndaw ñi waaye jàngale it naka la ñuy taxawee ci jàkk ak juma ba tey mu xëcc xëcc taxawal juma samp ko euh, ñëw nag ba lii nga xam ni moo ko fekk yëpp fa tabarakallahu yal na yàlla dolli ko wér te mottali ko mission am yi ngi àndoon ak Safina TV Haj Samba nekk ci technique bi fa tabarakallahu ak mboolem équipe bi nga xam ni moom la ñu àndal ñëpp directrice Seyda ñu ma moom it ñu remercier ko jaajëfal ko bu baax a baax ñaanal ko yalla yàlla dolli ko tawfiq ak taysiir ñaanal yàlla oustaz Pa Maxtaar mi nga xam ni moom fi def waxtaanu am solo yooyu avant Thierno Mouhamadou Bachir di ñëw ku nekk gis na li mu waxtaanee kan mooy Thierno Mouhamadou Bachir ak li Thierno Hamidou bind ci moom fa tabarakallahu ndax loolu rek doy na waxtaan doy na jàngale doy na wane kan mooy Cheikh Mouhamadou Bachir kon dañ leen di jox rendez-vous ëllëg incha allahu rabbi consultation gratuite bi nga xamni cierno Thierno Hamidou moom la toftal ci cérémonie officielle bi warté ànd ak yi mu àndal yëpp inshallah rabbi jerejeuf Samba jerejeuf Safina TV. ñu ànd seeg suñu télévision wu bopp di Al Ajdad TV di télévision wu xadara bi moom it ñu àndoon ak moom ci journée ziar bi yëpp moom mu seexandoo ak Safina ñu àndandoo doxal ndox na parce que ñaari organ la waaye benn la fa tabarakallahu yal na yàlla dolli tawfiix ba suñuy ñëwaat ci ziar bi déwén ñaari organe yëpp nekk télévision